العالمي خلافة ملكية كلما نارا للحرب أدفع على كلما أوخذوا نارا للحرب أدفع على كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا للحرب أفعله كلما أوقدوا نارا أفعله كلما أخذوا نارا للحرب أفعله كلما أخذوا نارا للحرب أفعله كلما أخذوا نارا للحرب أفعله كلما أخذوا نارا للحرب أفعله كلما أخذوا نارا للحرب أفعله كل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاله وليجعل الله للكيف آمين يا رب العالمين الذين خلقوا الناس آمين فانقلبوا بنعمة من الله ولم يسوء قاسما آمين لا في ليلة القدر أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر آمين يا رب العالمين تنزل الملائكة والروح بها بإذن ربي من كل أمن سلام ويأتم يفجر آمين الأخلاق إنا أنزلناه في ليلة القدر أما أدراك كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح بها بإذن ربي من كل سلام ويأتم يفجر آمين في بحرمة إساء بحرمة لإلاف قريش إلافهم ليلة الستاء وسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أرحم من دون وآمنوا من خوف آمين وبحق اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما أغلق والقاتم آمين يا رب العالمين والهادي إلى صراطك المستقيم وآل آله حق قدر يوم قدر حسيب آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين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 dafa am yitte ju nekk ci moom taxawu ko. dafa am itte ju nekk ci moom taxawu ko. kon mi ngi ci biir. kon moo ngi ci biir. ndax ndigal li mooy diine ji. diine ji ndigal mooy diine ji diine ji mooy ndigal li. Eh, nu fas yéene ñaanal mag ñi. nu fas yéene ñaanal mag ñi. mam Amadou Ndaak Seck. maam Ahmadou Ndaak sek mi nga xam ne lii lépp moom la. mi nga xam ne lii lépp moom la. ndamam ñëpp xam na ko. ñëpp xam nañ ko. ndamam. ndamam ñëpp xam nañ ko. ndamul njaboot gi ñëpp xam ndamul njaboot gi ñëpp xam nañ ko. seen wàll ci bés bi. seen wàll ci bés bi. nañ jëkk a seddu. lanu jëkk a seddu. nañu jëkk a seddu nañu jëkk seddu ñoom. Fatiha. Fatiha. Lixlaas. Lixlaas. xul wallaaw ba mu jeex. xul wallaaw ba mu jeex. ñeent fukki ak ñeent. ñeent fukki yoon ak ñeent. feru salaatul faatihi. feru salaatul faatihi. ñu door a ñaanal nag. ñu door a ñaanal. sëriñ bi ak njaboot sëriñ bi ak njaboot gi. ak bokk yi ak réew mi bismillah ñi doon ñi doon laaj addiye yi nañ ko laaj sax yi jëm ci néew yi doole yi ñu ko doon laaj nañ ko laaj nañ dem ba ci jigéen ñi ñu laaj ko te indi ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين يا رب العالمين ونادي ak njabootam bu baax bépp jullit seen yërmande seen teraanga seen sakk yàlla ko yàlla sëriñ bi nee na ñu ñaanal Baye Cheikhou Thiénaba ak lépp lu aju ak lépp lu aju ci njabootam biir réew mi ak bitim réew. biir réew mi ak bitim réew. canaba ak li aju ci canaba. canaba ba Sénégal daj. ba Sénégal daj. ñu ñaanal Baye Cheikhou. ñu ñaanal Baye Cheikhou canaba. dugal ci kilifa yi diine ci kilifa yi ci réew mi yëpp. dugal ci seenu njaboot. dugal ci seenu njaboot. yu diine yi. yu ak yu aada yi ak yu aada yi. dëkk bii. dëkk bii. mboolem ñi teew di dégg kaddu yi mboolem ñi teew di dégg kaddu yi fa ñu jógee fa ñu jógee te di fa dellu te di fa dellu yàlla na ci ñëpp bokk yàlla na ci ñëpp bokk ñu jàng fatiha ñu jàng fatiha ayatul kursi inna anzalnahu li ilaafi xurasin fallaxi ak naasi salaatul fatiha Seexu Canaba Baye Serigne Assane Seck. nee na Baye Serigne Assane Seck Seexu Canaba. ak nawlay kilifa yi ak nawlay kilifam diine yi. ak fu kilifa nekk. ak fu kilifa mën a nekk. ak mbooleem njaboot ak mbooleem njaboot gi leen di jàppale. yàlla yàlla gën leen a sàmm. yàlla na sunu borom bi dolli leen a sàmm. gën leen a aar dolli leen a aar. musal. dolli leen a musal. barke Seydina Rasulullah barke Seydina Rasulullah. barke Seexu Canaba barke Seexu Canaba. mu jàng Faatiha mu bokkaat jàng Faatiha. alam nasra alam nasra. inna anzalnaahu inna anzalnaahu. li ilaafi Xuraysin. fallaxeeg naase. dëkk bi dëkk bi. ak waa dëkk bi ak waa dëkk bi. jumaa ji jumaa ji. ak waa jumaa ji ak waa jumaa ji. équipe bi nga xam ne. équipe bi nga xam ne. mooy sikarkat yi mooy sikarkat yi. baytu rahmati baytu rahma. chef de de village. ak ñi koy jàppale ak kër bu ne. ak ñamu jabootee ba dëkk bi daj ba dëkk bi daj. mboolem ñi sant sekk mboolem ñi sant sekk. mboolem njaboot gi mboolem njaboot gi. góor yi wàcc si góor yi wàcc si ci penc mi. te seen maam daa ko def te seen maam daa ko def. jële ko ci seen baay jële ko ci seen i baay. ñu di ko def ñu di ko def. ba seen i doom jël ko ba seen i doom jël ko. ba seen i sët jël ko ba seen i sët jël ko. ñu toog toogaay boobu ñu toog toogaay boobu. ñu gën a wér ñu gën a wér. gën koo man gën koo man. yàlla gën leen a sàmm yàlla gën leen a sàmm. ñoom ñëpp gën leen a aar gën leen a aar. ñoom ñëpp gën leen a dimbali ñu gën a doon doon seen baay gën a doon seen baay fatiha alam nashra inna anzalnaahu fallaxi naasi salaatul fatiha yàlla na yàlla nangul nu yàlla suñu borom bi nangul nee na nee na sëriñ bi nee na moom bun Abdoulaye Dione euh, euh, euh, dafa noppalu nee na Mouhamed bun Abdoulaye Dione dafa noppalu ancien premier ministre nee na ancien premier ministre nee na tey ñëw na dañ ko war a denc tey nee na ñëw na tey jii lañ ko war a denc ah, jàmbaar la jàmbaar la Gosaas la dëkk de. Gosaas la dëkk de. waaye waa Gosaas xam nañ fa la waaye waa Gosaas xam nañ ni fa la dëkk. sëñ bi xam na ko. sëñ bi xam na ko. nee na nañ ko ñaanal. nee na nañ ko ñaanal. yàlla gaawe ko yërmande yàlla gaawe ko yërmande. ñu jàngal ko Fatiha ñu jàngal ko Fatiha. fukki ixlaas ak benn fukki ixlaas ak benn. salaatul Fatiha ak te dugal ci jullit yëpp. nee na nu dugal ci jullit yëpp. yàlla na sama borom teral tërluwaayam. yàlla na sunu borom bi teral ab cërluwaayam. seral tërluwaayam. seral ab tërluwaayam. te boole ci julli ci biir ne boole ci julli ci biir suuf yëpp. ginnaaw loolu. sëriñ Jibi moo fi toogal sëriñ bi. sëriñ Jibi moo fi toogal sëriñ bi. ñun ñu nekk di leen jàppale. ñun ñu nekk di leen jàppale. moom sëriñ bi ak sëriñ Jibi ñëpp. moom sëriñ bi ak sëriñ Jibi ak ñëpp. jumaa ji ak ñi ci nekk. jumaa ji ak ñi ci nekk yëpp. muy imaam yi ak naay bi muy imaam yi ak naay bi. ñii wasifa. ñii wasifa. ñii nodd. ñii nodd. baytu rahmati baytu rahma. daayira yi ci dëkk bi daayira yi ci dëkk bi. équipe bi ci dëkk bi équipe bi ci dëkk bi. chef de village chef de village. ak koy jàppale. nee ak ñi lay jàppale. ñi yor rajo bi ñi yor rajo bi. sous préfet sous préfet. ak ak. adjoint sous préfet. Euh, maire Talla Diagne. nee na maire Talla Diagne. ak sëriñ Abdou Ngingue. sëriñ Abdou Ngingue. ak njaboot gi leen di jàppale. njaboot gi leen di jàppale. ak yéen mbokk yi toog. ak mbokk yi toog. kenn ku ne. kenn ku nekk. wane ni. wane ni. fii ma toog. fii ma toog. sama maama daa na sama maam moo fi daan toog. jox baay. nee na jox ko sama baay. dara yàquwul. dara yàquwul. may toog. may toog. ba jox ko sama doom. ba jox ko sama doom. dara yàquwul. dara yàquwul. sama doom. sama doom. jox ko sët. jox ko sët. mooy jotaay bi kenn ku ci kenn ku ci nekk. suturas maam ya. maam ya. ak baay ya ak baay ak doom ya ak doom ya. ak warma ji ak warma ji. yàlla na yàlla boole lépp. yàlla na yàlla boole lépp. defal nu ko. yàlla yàlla boole lépp yàlla yàlla boole lépp. jagleel la ko jagleel la ko. ba yow ba yow nga gën a mën a ñëw. nga gën a mën a ñëw. te bu jotee te bu jotee. nga am ku la ca nga am ku la ca wóotu. Omar si Omar Sy El Hadj Omar si doom la doom la. mbokk la mbokk la. dëkkandoo la dëkkandoo la. xarit la xarit la. wëllëre la wëllëre la. ñaan yëpp ñaan yëpp. mu ngi ci biir mi ngi ci biir. waaye sëñ baa ngi koy beral waaye sëñ baa koy beral ñaanam. ak ngërëm ak ngërëm. nun ñëpp nag nun nu xam ni. nu bokk xam ni am ba noppi. am ba noppi. am sa baay. am sa baay. am sa maam. am sa maam. mooy ngën ji am am. mooy ngën ji am am. bépp am am boo am. bépp am am boo am. mu xañ la sa am amu. xañ la sa am amu. baay baay. xañ la sa am amu maam. xañ la sa am amu maam. mënta mat. mënta mat. lu matul nag. lu matul nag. mënta faj soxla. mën mënta faj soxla. ku sa maam di wuyoo seexu canaba ku sa maam di wuyoo seexu canaba. bàyyi sa baay mu wuyoo seexu canaba bàyyi sa baay mu wuyoo seexu canaba. bàyyi sa ma sa ba sa sa doom muy wuyoo seexu canaba. nee na nga bàyyi sa doom muy wuyoo seexu canaba. ba sët di ko wuyoo. ba sët di ko wuyoo. ba sunu jotaay bii ba sunu jotaay bii. am am am am. mooy am loolee mooy am loolee. borom bi moo ni borom bi moo ni walladina amanu walladina amanu mboolem ñi gëm yàlla mboolem ñi gëm yàlla dund ca dund ca ba faatu jot ba faatu jot ñu faatu ca wa tabaatuhum zuriyatuhum wa tabaatuhum zuriyatuhum doom yi dugg ci sët yi doom yi dugg ca sët yi sët yi dugg ca nekk ca la bàyyi nekkoon nekk ca la bàyyi nekkoon muy doom muy doom bàyyi dem sët ñëw bàyyi dem sët ñëw yàlla nee na. yàlla nee na. alxaq naa bihim zuriyatahum. alxaq naa bihim zuriyatahum. damay jël fa ma teg maam. damay jël fa ma teg maam. yóbbu fa baay. yóbbu fa baay. yóbbu fa doom. yóbbu fa doom. yóbbu fa sët. yóbbu fa sët. wa maa alatnaa min amalihim shay'an te du ma wàññi jox kenn. nee na te du ma wàññi. ca la ma waroon a jox kenn di ko joxe keneen. ñëpp laay matalal lépp laay matalal. moo tax kóllëre googu. nee na kóllëre googu. nu gën koo sàmm bu baax koo sàmm bu baax. rawatina cene ba gii rawatina ba gii. cene moom ku fi dëkk. cene ba moom ku fi dëkk. mu wóor la ni. mu wóor ni kër gii nga ne kër gii nga nekk sa maama ko dëkkee sa maama ko dëkkee ba jox ko sa baay ba jox ko sa baay sa baay dëkkee ko sa baay dëkkee ko ba jox la ko ba jox la ko nga dëkkee ko nga dëkkee ko ba ba fi say doom ba ba fi say doom ba say doom ñuy gor muy gor di jullit di jullit soo bokkee feneen soo bokkee feneen war a warmaal sa bopp war a warmaal sa bopp képp ku ndax feneen moom ku fa yàlla yóbbu nga dem fa. ndax feneen ku fa yàlla yóbbu nga dem fa. waaye ku mën laa toxu. waaye ku mën laa toxu. na nga am war ma nga am warma. ñàkk warma. ñàkk warma. dara jëru ko dara jëru ko. te kat te kat. ñàkk warma ñàkk warma. mooy yemadi mooy yemadi. te ku yemadi te ku yemadi. mun laa yemale sa bopp mun loo yemale sa bopp. yàlla day indi yàlla day indi. ku la yemale ku la mën a yemale. loolu nag ñëpp a ko moom nee na loolu nag ñëpp ko moom. diine ji diine ji. ku mu doyul ku mu doyul. ba nga wuti leneen ba nga wuti leneen. soo fi mënta ba dëkk bi soo fi mënta bàyyi dëkk bi. bu fi bàyyi orma. di nga fi bàyyi orma. bu fi bàyyi orma bu fi bàyyi orma. na nga yiw na nga yiw. yaru yaru noppi noppi. xam fooy xam fooy dugg. xam fooy génn xam fooy génn. am na loo xam ne kat nee na am na loo xam ne kat ku ca dem yaa ci yóbbu sa bopp dem yaa ci yóbbu sa bopp bokkuma ci bokkuma ci du ma tuxu du ma tuxu lu ma neex wax lu ma neex def nit du ko def nit du ko def nee na nañ ko bàyyi xel bu baax lii sëriñ bi wax lii sëriñ bi wax sëñ Demba Sarr wax sëñ Demba Sarr wax ko mooy dëgg de mooy dëgg de li wér te wér mooy li mooy borom kër borom kër soo amee fayda soo amee fayda fekk ko ci këram fekk ko ci këram di ko wax mu bëggul di ko wax lu mu bëggul noppi noppi. lu mu noppi noppi. dina la ni dina la mas ni la. abal ma sama kër. abal ma sama kër. bu boobaa yow nag. su boobaa yow nag. lay sa fayda. lay sa fayda. mooy génn dem ca. mooy génn dem ca. mbedd ma ca mbedd ma. naan ko fii mbeddum buur la naan ko fii mbeddum buur la. fekk ma fi fekk ma fi. du la fa fekk. naan du la fa fekk. waaye bu la nee abal ma nga bañ. bu la nee abal nga ma abal ma nga bañ. di nga xam ni moom moom pénc mi lii moo nekk nee na lii moo ci nekk. te billaahi mooy dëgg. te loolu it billaahi mooy dëgg. lu neex waay mën naa def. lu neex waaye mën naa def. nit la ko doy doy na ko. nee na nit la ko doy doy na ko. waaye nag na am sutura. waaye nag na am sutura. na am yar na am yar. na am teggin na am teggin. waaye wane naan. waaye wane naan. lii laa. lii laa nëbbuwuma. nëbbuwuma laquwuma laquwuma. aw rab bu nëbbuwul ab rëbb. nee na aw rab bu nëbbuwul ab rëbb. léegi fital atté leen léegi fital atté nee na ñu gërëm ñëpp ñëpp. di balu ñëpp àq. buntu kër bu ne buntu kër bu ne. ak ña fa ne ak ña fa ne. seen sakk seen sakk. seen sutura seen sutura. yàlla dolli ko yàlla dolli ko. mboolem ñu wàcc si. mboolem ñi wàcc si. ñi wàcc si. kenn ku nekk kenn ku nekk. te daan ñëw te daan ñëw. fa nga jóge fa nga jógee. nga ñëw ak fi nga jëm. ku la gis ku gis. mbaa nga gis ko mbaa nga gis ko. yàlla na bokk yàlla na bokk. ci yërmande ji ci yërmande ji. ak njégal bi yàlla na ko fekkee yàlla na ko fekkee na nga ni déwén yu bari. barke Seydina Rasulullah barke Seexu Canaba. sëriñ bi li mu waxoon doy na. bi li mu waxoon doy na. waaye moo ne nañ ko feddliwaat rek. nee na kàddu yu mi ngi ci chef de village bismillah sëñ ñaan nee na yomb na am waxtu na gën a yaatu jaajëf ji na ñu jaajëfal imaam xaar ma toog booy. nee na ginnaaw bi ñu nuyoo Baye Serigne Thiam. Baye Baye Serigne Assane Seck. nee na Baye Serigne Assane Seck. ñaanal ko fan wu gudd ak wér. ñaanal ko fan wu gudd ak wér. ak sutura ak teraanga. mu yàgg jiite diine. mu yàgg jiite diine ji. yàgg jiite tariixa bi. yàgg jiite tariixa bi. ñu ngi ko koy ñaanal. ñëpp ñu ngi ko koy ñaanal. ndax sunu sag la. ndax sunu sag la. ndax chaise bii mu toog. ndax chaise bii mu toog. di chaise maam Ahmadou Ndaak. di chaise maam Ahmadou Ndaak. lu jamono yàgg yàgg. lu jamono yàgg yàgg. mënoo ñoo ñàkk ku toog ci chaise bii. sagal diina ji. di sagal tariixa bi di sagal tariixa bi. ñuy nàmp ci moom fa tabaarakallaahu di lu wéttali nuy nàmp ci moom. mu aye ko tey nag. nee na mu aye ko tey nag. waaye di kilifa gu jàpp waaye di kilifa gu jàpp di kilifa gu lewet di kilifa gu lewet. di kilifa gu yaatal di kilifa gu yaatal. Baye Assane nit ku baax la. Baye Assane ku baax la. lépp loo dégg. lépp loo dégg. ci moom te neexu la. ci moom te neexu la. ak mbaaxam ak mbaaxam. ak gaaw a gëm nit. ak gaaw a gëm nit. moo ko ca dugal moo ko cay dugal. waaye nit ku baax la waaye nit ku baax la. ñu ngi ziar imaamu ratib ñoo ngi ziar imaamu ratib. di ko jaajëfal di ko jaajëfal. ni ko sëñ Thierno Ba jaajëfale moo ko rakkam yi bokkal moo ko rakkam yi bokkal yëpp sëñ sëñ Mourtala ngi ci biir sëñ Mouhamadou Mourtala ngi ci biir sëñ Khalifa Ibrahima ngi ci biir sëñ Gora Seck sëñ Gora Seck Imam Makhtar nee na Imam Makhtar ñu ngi lay beral ak cant ak cant ci naafila gi ci naafila gi moom Baye Ibrahima Diop moom Baye Ibrahima Diop taxawaay bi rafet taxawaay yi rafet na sagal nañ diine nee na sagal ngeen diine ji sagal nañ tarixa sagal ngeen tarixa bi jaajëfal daayira si jaajëfal daayira Zikrullahi ku leen gis ñuy sikar nee na ku leen gis ñuy sikar nga xam ne ay mag lañ nga xam ne ay mag lañu suñuy yëkkatee sax suñuy yëkkatee sax dootu kawe dootu kawe waaye maa ngi ñaan waaye maa ngi ñaan ñi mën a sikkar ñi mën a sikkar te nekk ci daayira yi te nekk ci daayira yi bu kori ñëwatee bu kori ñëwatee wala tabaski wala tabaski wala gàmm wala gàmm nañ leen renforcer nañu renforcer mag ñooñu sagal diina ji sagal diina ji sagal tarixa bi sagal tarixa bi wàññiwul dara wàññiwul dara di jaajëfal waa bayta nee na jaajëfal waa bayta rahma baytaala yàgg baytaala yàgg ak sëñ taala ak sëñ taala Dia. ak sëñ Papa Dieng. sëñ Papa Dieng. ak sëñ Khalifa Mbeng. ak sëñ Khalifa Mbeng. ak maam Baba Diop. ak maam Baba Diop. wéttali nañ diine wéttali nañ diine ji. ak ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne nii. ñoo ngi nuyu yi nga xam ni. jamono jot jamono ju jot. dañuy ñëw wéttali ñu. dañuy ñëw wéttali ñu. Canaba moo ci jiitu Canaba Gaar ci jiitu. di Canaba Seck. Canaba Seck. di Canaba Seck. di Canaba Seck. Oustaz Ngom nekk fa. Oustaz Ngom nekk fa. ak sëñ Babacar. ak sëñ Babacar. ak sëñ Modou Mar. ak sëñ Modou Mar. ak Dieng ñoom sëñ Ilimane Dieng ñoom ñu bokk ak ñoom orma ji ñu bokk ak ñoom orma ji ni ko sëñ Seexu waxee ni ko sëñ Seexu waxee waa xëy nañ leen jaajëfal nañ leen waa kër Maysa waa kër Maysa sëñ Maysa Diop sëñ Maysa Diop ak ñam jaboote ak ñam jaboote waa waa waa waa kër Magay waa kër Magay sëñ Njaay Gay sëñ Njaay Gay ak ñam jaboote ak ñam jaboote bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn sëñ Papa ñu sëñ Papa Diagne di suñu doom bàjjan suñu doom bàjjan féete Thiès féete Thiès at mu jot te at mu nekk ñu bokk diine ji ñu bokk diine ak mbalaan ji balaan bi ñu ngi koy jaajëfal ñoo ngi koy jaajëfal jaajëfal Aly Diouf di doom la ci kër gi doom la ci kër gi taalibe la ci kër gi taalibe la ci bi jox ko raw du maam bàyyi sëñ Canaba ko raw du maam maam Momar Talla bi mu di ko sàmm mu di ko sàmm di ko saytu di ko saytu te ko ñu ngi koy nuyu baax koy nuyu di nuyu njabootam yi àndal yëpp di di nuyu commandant brigade di nuyu commandant bi gendarmerie bi gendarmerie bi ak commandant brigade ak commandant brigade sapeur bu sapeur pompier yi di nuyu maire Talla Diagne di nuyu Abdou Ñing di di nuyu sous-préfet di nuyu sous-préfet ko jaajëfal bu baax ci taxawaay ci taxawaay yi ku lewet la nee na ku lewet la ku ñu mën a taxaw la ku ñu mën a taxaw la di di jaajëfal di jaajëfal préfet département préfet département ak gouverneur gouverneur ak ministre de l'intérieur ba ci président de la république Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko premier ministre bii fi toog bii fi toog li ci alaaji ngañ demba saar wax ak sëriñ bi doy na sëkk ñun seen njaboot lañu canaba kat te canaba kat mës ta wuute ak buur mës ta wuute ak buur suñu diine suñu diine mag ñi ku leen bàyyi mag ñi ku leen bàyyi seen diine seen diine ak seen tarixa ku leen bàyyi ak seen diine ak seen tarixa ak seenu sellal ak seenu sellal soxlaatuñu dara soxlaatuñu dara gouverneur général gouverneur général jóge na ca ndar jóge na ca ndar fekk fi maam Momar Tall fekk fi maam Momar Tall ni ko ndax am nga doom ni ko am nga doom ju dégg tubaab ju dégg tubaab ndax li ma lay wax ndax li ma lay wax sa doom rek laa koy wax maam Momar Tall ni ko ma ma ko dégg ba dem bi mu jógee ba dem maam taal dafa laaj satala gi maam taal dafa laaj satala gi ni nañ ko defal mu raxas ni nañ ko defal mu raxasu ndax innamal mushrikuuna ndax innamal mushrikuuna najasun najasun mag ñi mag ñi seenu teet seenu teet foofu la àggoon foofu la àggoon ñoo ngi ziar Cheikh Ahmad Dam suñu Baye Diop Seck suñu Baye Diop Seck suñu xalifa Ibrahima suñu xalifa Ibrahima mu bàyyi sëriñ Taalaxaar mu bàyyi sëriñ Taalaxaar sëriñ Mamadou Roqee sëriñ Mamadou Roqee sëriñ Ngoussane sëñ Cheikh Fall. sëñ Cheikh Fall. ñu ngi lay jaaj ñoo ngi lay jaajëfal. pam boobu maa jooja. pam boobu maa jooja. ak pam boobu mu ndaw. ak pam boobu mu ndaw. yu booyul. seen waar yu booyul. jaajëfal nañ leen. jaajëfal nañ leen. ñu ngi ñaanal sëñ Ousseynou Mboub. ñu ngi ñaanal El Hadj Ousseynou Mboub. sëñ Ibrahima Mboub. sëñ Ibrahima Mboub. Euh, ak El Hadj Makoura ba ca ba ca li ngañ saa doon wax léegi. li ngañ saa doon wax léegi. ak li sëñ Cheikh doon wax léegi. ak li sëñ Cheikh doon wax. ak li imaam yi wax. li imaam muy sàmm orma muy sàmm orma lim mën a jur. lim mën a jur. ak lim mën a xañ nit. a jeqi tuuti dina ci jeqi tuuti bàyyi ngañ jóob bàyyi ngañ jóob daf doon ku bëgg yàlla daf doon ku yàlla bi ñëwee ci kër gi bi ñëwee ci kër gi yàlla boole ko ak Baye Mor Gueye boole ko ak Mame Mor Gueye mu di ko xamal yàlla mu di ko xamal yàlla te maam Mor Gueye ku musaan ñëw ci moom maam Mor Gueye ku musaan ñëw ci moom bokk ci beneen kër bokk ci geneen kër daan naa sama gànjar daf naan la sama gànjar du ma ko takkal jabari jàmbur du ma ko takkal jabari jàmbur da ngay nangoo doon ab cana da ngay nangoo doon ab cana ba cana ba ma doog laa tarbiya ma doog laa tarbiya daa ñëw fii seet si Baye Talla Xaar daa ñëw fii seet si Baye Talla Xaar yoona mu jëkk yoona mu jëkk ni daa bëgg a ziar ma ni dafa bëgg a ziar ma Amady Laat mu boole ko bàyyi seenu xaar mu boole ko bàyyi seenu xaar mu ziar ma Amady Laat mu ziar ma Amady Laat génn génn di jooy di jooy yendoo ko ba ngoon yendoo ko ba ngoon bàyyi taala ni ko lu mu doon bàyyi taala ni looy jooy ak baaw seenu xaar ak baaw seenu xaar mu ni ko góor gi mu ni ko góor gii musuma gis génn góor musuma génn gis génn góor benn nitu yàlla benn nitu yàlla bu toll ni moom bu tol ni moom maqaama maqaama mbaa daraja mbaa daraja Mm-hmm. mu ne ko taxawaayam ci kaw mu ne ko taxawaayam ci kaw xaw ma fu mu yem xaw mu yem nag te mu toll nag la kawar na mu meloon booba noonu la mel mu ne baaw seenu xaar yow nag mu ne baaw seenu xaar la taf la ci dënnam taf ma ci dënnam taf ma ci dënnam waaye diw mii de tiit naa ci moom naa ci moom fa ko sànni fa mu ko sànni diirub jamono. diirub jamono. mënut si mënut si dellu Sénégal mënatula dellu Sénégal. waxuma laa can waxuma laa can yooyu. yooyu la ñuy moytuloo xale yi la ñuy moytuloo xale yi. te mi ngi ci biir kër gi te mi ngi ci biir kër gi. di dox di dox. maam faxasil la. maam faxasil la. danoon danoon danoon mu xàddam maam sëñ. danoon mu xàddamu maam sëñ Canaba. moo jur ñoom Talla Sylla. moo jur ñoom Talla Sylla. ak sëñ Modou Diagne Faye ñoom. ak sëñ Modou Diagne Faye ñoom. benn sëtam nee na ma. benn sëtam nee na ma. danoon danoon conseiller technique. danoon conseiller technique. bu maam Talla Seck bu maam Talla Seck. benn waay da doon liggéeyal benn tubaab benn waay da doon liggéeyal benn tubaab tubaab bi ni ko loo bëgg ma defal la ko tubaab bi ni ko loo bëgg ma defal la ko mu ñëw wax ko maam taal mu ñëw wax ko maam taal ni ko sama njaatigee ni ko sama njaatigee damaa wax ni daf maa wax ni ma loo bëgg ma defal la loo bëgg ma defal la ko mu ne ko xaaral ba faxasi la ñëw mu ne ko xaaral ba faxasi la ñëw ku rafet xalaat la ku rafet xalaat la maam faxa nuyoo maam faxa nuyoo mu ne ko faxadee mu ne ko faxadee sama ndongo loolu sama ndongo loolu njaatigeem da ko ni njaatigeem da ko ni loo bëgg ma defal la loo bëgg ma defal la ko mu ne ko kolo nit bu yéeneem àgg ci nit bu yéeneem àgg ci loo bëgg ma defal la ko loo bëgg ma defal la ko nee ko loo ko defal loo ma defal baax na nee ko loo ma defal baax na mu ne ndongo li dawal ngaa wax mu ne dawal waa wax xoloon maam faxa si la moom maam faxa si la moom yàggul dara yàggul dara wallaahi benn sëtam nee ku sell la nag ku gis na gis na tiyoob leer tiyoob leer bi jóge ci réew du mag ñi bi jóge ci réew du mag ñi ba dugg ci réew doom ba dugg ci réew doom di ko leeral di ko leeral di ko climatiser di ko climatiser yàggul dara yàggul dara kon lii ñu leen di bañ loo kon lii ñu leen di bañ la mën a jur yooyu rek la mën a jur maanaam bokk ci ba pare bokk ci ba pare te bokkoo ci baaxul baaxul sëñ Adi Touré dane bi tijaan xotti war may diine bul xotti war may diine bu tilimal mbubbum sariya bu tilimal mbubbum sariyaatu loolu warul ci tijaan loolu warul ci tijaan sariya mbubbam sariya mbubbam dañ koy sàmm dañ koy sàmm waaye or may diine waaye or may diine dañ koy sàmm dañ koy sàmm mu ne joxal xaqiqatu aqam mu ne joxal xaqiqatu aqam jox sariyaatu sartam jox sariyaatu sartam loolu moo nu war loolu moo nu war ñun gaa yi tijaan ñun gaa yi tijaan sëñ Ibrahima taxaw na fii Ibrahima taxaw na fii tiim am néew ba ci yàgg tiim am néew ba ci yàgg mu ne kii de mu am loolu nooy bañ mu ne kii de bu ma am loolu nooy bañ dama koy génn dëkk bi dama koy génn dëkk bi ak armée yi ak armée yi waaye dañ ma ko yóbbu yóbbul waaye nañ ma ko yóbbul fu mu sës ca miir ba ba mu sës ca miir ba yooyu daf koy daw yooyu dañ koy daw am na ku nelaw am na ku nelaw mu dawal woon ma sëñ bookar dawal ma wool ma sëñ bookar mu julleel ma ko mu julleel ma ko ma bàyyi ko fi ñaar fukki fan ma bàyyi ko fi ñaar fukki fan ba ma ko fekkee ba ma ko fekkee mu xam ni mu xam ni matoon naa ko kilifa matoon naa ko kilifa ndax li muy dund lépp ndax li muy dund lépp musuma faale musuma faale nan moytu bu baax nan moytu bu baax yooyu rek moo tax nee na yooyu moo tax mooy kaddu ngañ saar mooy kaddu ngañ saar mooy kaddu sëñ Cheikh mooy kaddu sëñ Cheikh mooy sëñ jibi mooy sëñ jibi moom la imam Maxtaar di wax moom la imam Maxtaar di wax moom la sëñ bi di wax moom la sëñ sëñ bi moom la ñu doon wax moom la ñu doon wax canaba nag canaba nag bàyyil fa daan wax ni bàyyil fa daan wax ni ñàkkuma leen a wóolu ñàkkuma leen a wóolu jamono laa wóolu jamono laa wóolu ndax ruur mi daa bari ndax ruur mi dafa bari ay jàmbaar dëgg la ay jàmbaar dëgg lañu waxuñu ni gars yi duñ jàmbaar waxuñu ni gars yi duñ jàmbaar ndax ba nëgë ni ndax ba nëgë ñu ngi koy téye ñu ngi koy téye ñu ñu yaakaar di ñu yaakaar ñu ñu yaakaar di ñu yaakaar ñu nu fonk di ñu fonk ñu nu fonk di ñu fonk ñu nu bàyyi xel di ñu bàyyi xel di ñu bàyyi xel waaye bañ jamono ruur waaye ba nu jamono ruur moo tax ñuy waxee nii moo tax ñuy waxee nii te loo wóolu sa ngànnaay loo wóolu sa ngànnaay foog nga daas ko faaw nga daas ko nan langaamu ci diine langaamu waat ci diine langaamu ci tarixa bi langaamu ci tarixa bi langaamu ci bokk langaamu ci bokk gi col gu gàtt gi bari col gu gàtt gi bari sañ-sañ yoo xam ne sañ-sañ yoo xam ne ki tax nga sañ ko ki tax nga sañ ko yow sañ nga ci loo xam yow sañ nga ci loo xam ne moom sañu ko moom sañu ko loolu des koy ragal loolu dañ koy ragal sàmmaat dëkk bi sàmmaat dëkk bi sàmmaat diine ji sàmmaat diine ñi fi taxu si bari na ñi fi taxu si bari na te man xawma leen te man xawma leen sëriñ bi xamu leen sëriñ bi xamu leen maire xamu leen maire xamu leen imaam xamu leen imaam xamu leen keneen la may kër rek keneen la may kër rek ñu ñëw dugg ci dëkk bi waaye wallaahi waaye wallaahi ku fi taxu si ku fi taxu si wallu si woo diine ji te wallu si woo diine ji ak tarixa bi ak tarixa bi diine ji dana la génn diine ji dana la génn da lay gëq da lay gëq génn ci biti génn ci biti asalaamaaleykum presse bi presse bi presse bi ñu ngi sant presse bu baax ñu ngi sant préfet bu baax ñu ngi sant préfet bu baax ñu ngi sant préfet bu baax Thiénaba TV Thiénaba TV ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant Samsu TV Samsu TV di sant Baye Ndiame Gueye di sant sëñ Ndiame Gueye sëñ Alpha Sarr sëñ Alpha Sarr seen ité seen ité seen seen ité seen ité ak seen ñàkk jot ak seen ñàkk jot diine ji xamu ko diine ji xamu ko tarixa bi xamu ko euh, tarixa bi xamu ko fu ñu jóg rek. fu ñu jóg rek gunge nañ ñu. gunge nañ ñu wetti lañ ñu. ñu ngi jaajëf imaam Alpha boobu baax. jaajëfal imam Alpha Ba. bu baax bu baax. bu war a Mahdi bu war a Mahdi ak waa Mbubeen yëpp ak waa Mbubeen yëpp. waa kër maam Gora Ami ak maam Jimbi ak maam Jimbi ak maam Jimbi Aminata. waa kër Baye Mor waa kër Baye Mor Gueye. waa Taaleen waa Taaleen. Samsu TV Samsu TV. waa Nja Nja bàyyiwuñu benn kër. nee na bàyyiwuñu kenn fu tabaraka ñu ngi jël gërëm maar bu baax. gërëm nag maar Diop bu baax a baax. ñu gërëm chef de quartier yi. di gërëm chef de quartier yi. ñi nga xam ne ñooy sàmmal seen. bëgg nañu incha allah commencé def doxantu quartier. commencé waat nag def doxantu quartier. dox buñ cay dox nag. dox buñ cay du ump imam du ump imam. du ump waraat quartier yi. waraat quartier yi waxtaan ak chef ba doon bañ. la ko seexlu di ko seexlu. ñu lenk leen toog ñu lenk leen waat. ak ñoom ak lu nu ca ñu yëg ko sëñ ak imam. ñu yëg ko sëñ taala jaan ñu ngi sant ko sant bu baax فاتحة نعم، صلاة فاتحة جبريل صلاة الرحمن الرحيم مالك يا الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والهادي إلى صراطك المستقيم آمين آله أخذه مراسل آمين ولا آدمي خلافة ملكي